talibé moy mooy magum talibé moy yëkëti ay cadeau yo xamni ci cadeau section bi yëpp la cadeau talibé le cadeau kaddu yëpp la kon sëriñ ma ñëmé bismillah cadeau gaangi ni sëriñ bi talibé yaangi ni balay sa comme niko mawdo waxé rek xamna dess ci mun la ñàkk tek waye kon duñu ci tek dara sëriñ bi dong yaangi ni sëriñ bi Louga ngi nii sëriñ bi Njàmbur ngi nii di la jotali seen nuyoo nekk ci sa gannaaw nag di déglu sa ndigal tey ak ëllëg ñoo ngi lay xaar di la yaakaar di la ñaanal di sàkku ci yow ñaan yàlla bu sunu yaakaar tas yàlla ba suñu ñaan tëpp yi jëm ci yow balay sa yàlla nga fi yàgg lool te wér li nga namm ci liggéeyal ko sa maam ji yàlla na nga ko jëf ba jëf si wàllu bopp ba jëfaale wàllu ñeneen sëriñ bi ni nu ko daan waxe ak du jàng noonu ni nu ko daan waxe te di ko jëfe te xeeb ko lool ci sunuy taxawaay ak ni nga nekkee ak ñun jàppe ko ci suñu mbir te nu cofe ko sa nduur lool noo ngi la koy jégglu di ñaan nga jàpp jàpp jàpp jàpp te bañ noo topp suñu manqué noo ngi sa gannaaw sa mat sëriñ bi dafa am loonu waxoon fii daaw wala daaw jég nu fekk ko fekke ren yàlla nu fekke ay déwén yu bari lii day mbir moo xam ne ci nun mbir mu réy la nu daje fii nga nekk suñu biir sa jëmm jii nekk suñu biir jëmm yi dinu xool ci sa bët bu dinu ree ci say bëñ day mbir ci nun moo xam ne mi mënunoo am meneen mbir mënu toll ci àdduna ba tax na bu nu sañoon nga may nu bis at mii bu dellusee ku mu fi fekk rek nanu ko defe nii nu ko defe woon ñépp fu waay di mën a jëm na ñëw ba fii ba noppi wala fu sëriñ bi mën a nekk mu fekk ko fa ba noppi mu ñaanal ko sànnanteeg moom ay kàddu ñu doog a dem fa ñu jëm bu nu fa jógee gis ci suñu mbir loo xam ne yokkute la waaye du wàññiku te du doon ak wàññiku mukk itam nag yalla na ko yàlla fayal yal na yàgg loolu kanam yalla na ko yàlla defal li mu bëgg ci liggéeyal maamam ba mu rawee njortam jërë ngeen jëf sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp waa section bi ñëpp a ngi nii loolu mooy kàddu yi nga xam ne doon naa ko yëkkati nun ñu bokk mbir mi nu déggandoo ko mbir mi noo ko bokk muy daayira bi di section bi mooy suñu jawriñ mu ngi nii mën na ci fuuf dina jox ndigal te ndigal lu ñëw mu mën na ci fuuf jëkk nu caa def mujj nu caa def booleeg saayir ak baatinam lépp ci suñu biir yàlla na ko yàlla fayal jërëjëf Mbàkke allahumma salli ala sayyidina ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam sëriñ bi nag nee na mi ngi jiital sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala di ci toftal julli ci yenant bi sallallahu taala alayhi wa di ci toftal dollee sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi Serigne ma njéeme Jóob mii nga xamante ne si mooy magum yoon wi di ñaana yalla sunu borom bi dole ko degeural ci kanamu njabot ak mbolo mi sëriñ bi neena mi nga sant sëñ Modou Mané gey mi nga xamantene ne moy mooy jëwriñal section bi di sant wa section bi di len geureum di sant soxna Anta jeng jay mi nga xamanteni mo jité wilaya fam bi di ñaanal yalla suñu borom bi mu dëgëral ko ci kanamu mbolo mi ak ñimu mu ñëpp sëriñ bi nee mi ngi ci toftal sëriñ xaadim Seck mi nga xam mo jité wilaya jeune bi di ñaanal yalla suñu borom bi dëgëral ko ak mbolo mi mu andal ñëpp ci liggéey bi ak mbolo mi nga xamanteni si ñëpp ño bokk and nekk ci kër ga di yëngatu ak xidma bi yëpp te bok fi tew and di liggéeyal sëriñ bi ba teunku ci gannaaw sëriñ bi sëriñ bi neena mi ngi len yu bok and di len sante di len geureum di leen ñaan yalla suñu borom ngeen yagg ko fekk fi te seen jotaay bi yagg lool te and ak barke sëriñ bi nag nee mi ngi len ci bis bi ak ciona bi ndax neena lugu day sori na lool ak Touba te bis beet dafa dajeeg ren ay xat-xat ak ndox mi ak aw atàngoor waaye sëriñ bi nee na maanaam tiwul maanaam loolu yi lépp ngeen boole ko ànd seen mbooloo mi nga xamante ne si mooy li ko gën a muy àndandoo nasoo benn doon benn say ñoo ba fekk ko fii ci jataay bi bokk ànd toog teew ci kanamam di ko siyaare ci bés bu màgg bu teed bii sëriñ bi nee na maanaam mi ngi leen di masawu ci coono boobu ak xat-xat yooyu ak tàngoor woowi ak ndox mi sëriñ bi nag nee na bis bii sëriñ bi bi mu koy woote da koo woote waaye woote wu ko ngir jariñu moom ci boppam waaye da koo woote ngir jariñ julli ñi ak taalu yi sëriñ bi nag nee na ndokk ba Cheikh Moustapha wootee joxe ndigal ngeen bokk ànd tënku ci ndigal loolu yi ñëw di ko wuy si sëriñ bi nee na maanaam lépp loo xamante ne si sëriñ Touba ak Cheikh Moustapha nësër nañu ko dële nañ ko ci bis bii ci xéewal ki ngëneel ak jariñu zahir baat baatin ak àdduna ak àllaaxira yàlla na ko suñu borom bi defal leen ko ci barkeb sëriñ Touba barkeb Cheikh Moustapha sëriñ bi nee na mi ngi leen di dénk di ko dénk mbokk julli yëpp ak mbokk taalibe yëpp nañuy nangoo loru tey jariñe ndax nee na maanaam sëriñ bi ci loolu rek la tënku woon ci la nekkoon féete woo coono bi ak loru gi waaye keneen kum ko seqal ku nekk mu fas la yéenee jariñ la fas la yéenee noppal la nee na Cheikh Moustapha ci loolu la nekkoon maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamante ne mooy baabul muridina ci lool yi la tënku woon di jariñ taaliba yi di jariñu ñuy jariñu waaye moom mu féete woo coono bi ak loru gi ba tax na sëriñ bi nee na maanaam mi ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaan yalla suñu borom bi jotaay bi yalla na ko suñu borom bi def mu doon ay jotaay jotaay naso gi nga xamantene ci naso ngeen ko andu bokk ñëw tew ci fi ci kanamam ci bés bi yalla na suñu borom bi defal leen ci li ngeen ni wut neena mi ngi leen sant bu baax di leen gëreum neena mi ngi leen ni soñu ci li nga xamantene ci manam doon na lo xamantene ci dafa nuru ab galankor ci talube ndax neena mi ngi ciy soññu di leen ci soñu sëriñ bi nee na maanaam nga ne man mi ab taalibe la sëriñ diw rek moom laa aju moom laay siyaare du ma siyaare ji sëriñ diw sëriñ bi nee na mi ngi leen di wattandiku lool lool yi nee na lool yi pexem saytaane la te day yàq du defar sëriñ bi nee na maanaam nga dolti mi ne maanaam man mii day taalibe daara doos la sëriñ Mbàkke Mohamed soxna loolu rek laay siyaare ji du ma siyaare beneen sëriñub daara xuddoos sëriñ bi nee lool loolu pexem saytaane la na ngeen ko moytandiku sëriñ bi nee ma maanaam nga bokk na ma ne taalibe ban Daaru Xuddoos la sëriñ Xaadi Mbàkke mii mooy sa sama sëriñ du ma siyaar beneen sëriñu Daaru Xuddoos nee na loolu pexem seytaane la ne sëriñ bi nee na ngeen ko moytandiku nee na na ngeen bokk boole yamale sëriñ sëpp képp koo xamante ne si am leen ngeen mën a jàmm seen ni ngeen dajale seenu su lëf dem siyaare ji ko ngir jëm yàlla ak yonent bi sëriñ Tuuba ak jëmmam jii sëriñ bi nee na loolu mooy li mu leen dénk nee na moom foof la teg tànkam nee na loolu la leen dénk ngeen teg seen tànk foofii sëriñ bi nee na maan ngeen moytandiku yëfi jëfi saytaane yooyu nga xamante ne si day yàq jamono te lu yàqul nekk lu mel noonu moo ko yàq nee na sant ko kenn digalu ko kenn neen li mu leen digal mooy na ngeen boole yamale sëriñ sépp ngeen sant ngeen ngeen daal di boole sëriñ sépp di leen liggéeyal ku leen jox ndigal ngeen nekk a dajale seen daf dem jox ko addiya siyaare ko su ngeen pare na nekk ci ko liggéeyal sëriñ bi nee na lii daal mooy li nga xamante ne sant na leen ko gërëm na leen ko ku fi jógee ku nekk boo demee ak lu mën a doon li na nga xam ne sëriñ bi moom fii la teg tànkam tegu ko feneen amul xàjj amul seen ñëpp la bokk yamale képp ko aju ci moom te di dégg ndigalam it mi na nga yow na nga bokk yamale sëriñ sëpp boole jàpp sëriñ sëpp boole def ñëpp ay sëriñ sëriñ bi nee na mi ngi sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla sunu borom bi nag seen jataay bi yàlla na yàgg li nga xamante ne moom ngeen wursi ci bés bi muy bisub Cheikh bii sëriñ bi nee na maanaam bis bi képp koo xam ne ñëw nga ci guddi gi fanaan ko boo xëyee suba da nga wecc ci bàkkaar ba mel na liir buy door a gane jamono lool loolu yàlla sunu borom bi mi ngi ko wax ci aj màkka rek nee na képp koo xamante ne si aj nga màkka sunu borom bi nangul la sak aj boo jóge ci aj ga yaa ngi seet wecc ci bàkkaar mel na kuy door a gane jamono ci Cheikh Moustapha la ñu ko déggaat muy guddi gii képp koo xamante ne Cheikh Moustapha nee na fanaan nga ci guddi gii ba bët set daa ngi set wecc ci bàkkaar mel ne kuy doole gane jamono ci sa way jur yal na suñu borom boole defal ñu ko faj aajo yi lépp koo xamante andi waan nga fi jàngoro ko rag yal na suñu borom bi saafara ko jataay bi yal na yàgg te li ngeen doon wut ci ngeen wut ci bés bi yal na suñu borom bi jàppandal leen ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu nangu ñaan bismillah sigil te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér bul faale ka wuy seek farjëkki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha auzu billahi mina shaytan rajim bismillahi rahmani gannaaw sant yàlla bu baax di joolu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di doole sant Seexul Xadim di sant Cheikh Moustapha al yi mi nga xam ne yàlla dogal na ne bis bu màgg bu kawe bi bu bari ngëneel bi moom mooy ko woote gannaaw sëriñ bi tey wane ci ak dogu ba tax boobu ba tey ñu ci jariñu di bisub jariñ di ñaan suñu borom dogal ñu dajeek ngërëm la waaye di sant bu baax mbooleem section Louga euh, yi nga xam ne ñoom la àndal ci convoi bi ànd ñoom ci wàccaay liggéey bi yëpp yëpp ba mbooleem ña jiitu ci àndoon ci liggéey commission yi ak mboolem ñi nga xam ne àndoonoon tay ñew jaar ci jaar serigne bi doko ko ci dal yi di sant bu baax serigne bi momit taxawayam ci liggey bi yep ndax yalla dogal na section lugo mom moko ko jamono ji waye taxaway bi rafet na bokk ci mboolem liggelu wacc buñ ko jotale dañ cee jitu man ñu ca ba pare mujj ñu ca ñi ka ñaanal suñu borom gën ko katanal tay it la wut muy ngeeromal yalla lam ci wut ñu bokku ci wut suñu borom dajal lañu ko ñun ñep waye di ko sant ci kàddu yi nga xam ne eh, dénk nañu ko di kàddu yu jëriñ nga xam ne képp ko ci sukkandiku mën ngaa jëriñu eh, di wax ne eh, nan fexe di di di nangoo loolu ci nit ñi te di leen jariñ nga xam ne mooy doxalin Seexul ci liggéeyam bi yëpp waaye it Cheikh Moustapha Karim bi mu ko wutoo doxalin lépp gën lool. waaye it ki nga xam ne moom lañ tuddee bis bi di maam Cheikh Ibrahima Fall loolu mooy aw doxinam waaye it di wax ne moom it ñu koy sant baax sëriñ bi ndaxit it kàddu yi mu ne. na ku ne di ziar mboolem sang boo xam ne war nga koo ziar euh, bañ ko yemale ci Darou laa bokk mbaa feneen laa bokk muy ak yaatal goo xam ne mu ngi ciy dox ñaan suñu borom kàttanal ko dimbali ko ci ndax moo doon mission sëriñ bi kon képp ku ci dañuy xam ne yaa nga ci la sëriñ ba bëggoon kon day wane na rek dajalu diñ jëriñoo waaye dañuy jëriñ saak su ne di sant baax it waa communication ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñoom ñooy tasaare mboolem liggéey bi nga xam mi am ci màggal gi liggéey bi ñu def dana tax bo paré da nga mëna a xam lépp doon dox ci liggéey bi ak ni doon téré diko ñaanal suñu borom euh, katanal mbolé mbolém ñu ci liggéey waye sëñ Assane Mbacké mi nga xam moko jité diko ñaanal suñu borom momit mu gën ko katanal may ko ci ndam barké sëñ Tuubaa di sant bu baax mbolém ñu ci tay bi sigil jawé do madru yi nan ci yow bu wër te bul faale ka wuy sé ka farjaki mustafa su fekkon da ngay laaj carte sey candidat ni wiiw ne yaa wat ña Mustafa